danaa wax incha allah ci ñeenti minutes delloo leen benn bi kon 4 minit lay jël minit bu njëkk bi mooy nuyuwaa daara ji yépp ku lim juum jël nuyoo bi teg ci loxol Cheikh Makhtar mu joxal ñu ko mboolem ku yëngu ci daara ji ak nam cay yëngoo ndax bu nu fi jógee dem ñoom lañ fiy bàyyi buñ dellusee fekkaat leen fi te liñ fi bàyyi seen loxo yi buñ del seen nañ ko bàyyi woon dañuy fekk mu gën koo rafet gën koo mat yal yàlla fay leen maa ngi wax kon ci turu ci turu ñu ñëw ci daara ji tey wax ci daara ji ak liggéey ci daara ji di leen jottali lu nuyoo bi nag conseil économique social environnemental jox ni ma seen yóbbante ba teg naa ko fële ma yem foofu danoo sant nu wax ci benn thème bu nekk ne la ci sunu ginnaaw sëñ Mbàkke te bëgguma jël laaju sori kaw sëñ Jaxate te bëgguma wax fu naqaree mokkal waaye daal am na saar wu tudd alfaatiha ku ci nekk ñun yàlla def na muy farata ci sa julli ci suba jàng nañ ci ñaar maag yéen bu tisbaaree ñu wàññiwul julli daan ci jàng ñeent ñi wàññi julli jàng ñaar bu takkusaane ñu dolli bu timisee ñun ñëpp ñu jàng ñett bu ku wàññiwul julli danga nga ci jàng ñeent ku wàññi ñaar kon ñi matal julli fukk yoon ak juróom-ñaar la jàng saar woowu di alfaatiha waaye ku koy jàng ci ñun dangay àgg ci baat bu tudd iyaaka boo ne iyaaka sunu borom ne la taxawal nga taxaw mu ne la rëddal rëddu su ndaw bu la xéewalee nga ànd xéewal ga lab ndax xéewalug yàlla yërmande yàlla ñoom ñépp a mën a labal laaj ko waa dakaar ak taw bi léegi nag bi nga ne iyaaka kon da war a rëdd rëdd wu mag sol ci sa bopp sol ci say bokk sol ci say xame sol ci jullit yépp te bañ a génne kenn ne ko nastainu wala boog naabudu ñépp dugg mu ne rëddaatal nga rëdd rëdd wu mag sol ci sa bopp sol ci say bokk sol ci ñépp bi nga ne ko naabudu nekkoon ko nastainu mu ne rëddaatal nga rëddaatal du rëy waaw ne ko nag ihdina saxal ñu ci rëdd wii maa képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna si moo tax boo amee koo meroo sax yaa ngi koy dugal ci rëdd wa bu la neex bu la naqare ku ko xam kon duutoo meroo kenn ma foofu ci nekk benn ni ko alxuraan wootee loolu doy na ci sëkk xaayaan ko dégg séeréer loolu mooy ñaari minutes yi ñetteelu minute bi mooy su ma masaan taxaw fii samay nettali góor gi ñu fi daan fekk fee Cheikh Sidi Moxtaaru toog mu fa daan toog jiite donga yépp dégg naa daa am ku ma sa ñëw ne ko dafa am oto bu ma lay wutal mu ne ko lu muy jar mu ne ko ah, bëgg nañ ci juróom benn million jëm kaw mu ne ko boobu oto baax na léegi boo ko yóbbu ci parking ñi jaay oto mën nga caa am loolu mu ne ko waaw mu ne ko yóbbul ma ko ca defal ma ko xaalis te dem ca bitig ba jëndal ma ko mbiskit andil ma fii ci dong yi <laughs> ma waxaat ko daf ne ko dama laa bëgg a wutal ab oto Cheikh Ahmed Sakhir dama laa bëgg wutal ab oto mu ne ko waaw góor fu mu toll njëgg mu ne ko juróom benn million bëgg nañ ko caag lu topp mu ne ko boo ko yóbboo fi ñuy jaaye oto yi ndax mën nga caa am juróom benn million mu ne waaw mu ne ko yóbbu ko fa te boo fa jógee nga dem ci bitig ba xaymaal ma ko ci mbiskit indil ma ko fii ma bokk ko maag dong yi ndax xam ngeen mbiskit ak dongo soo dee copain mbiskit ak dong dong yi xam nañ ci dara man ni mbiskit sama copain la ngeen baal ma yéen kundaay ma bëgg nag fii ma taxaw ginnaaw kii wax na 2 million professeur Diouf million la yalwaan ma bëgg a taxaw fii ngeen dajaleel ma million bu teg su manqué du ma joxe micro bi li feeg matul ku fi andi pièce bëgguma pièce ku bëgg andi ab cent franc bëgguma pièce ku indi cinq cent bëgguma ndax kenn mënu ko wàññi ku ci joxe bu déewé ne yàlla na nga ñëw yàlla boo ñàkk ca la joxe ku joxewul ñaanaluma la wasalaam yow la kan mais as ndaw yow merci as as merci dégg nga ana as as merci tegal ma fii ama dugal fii ah bu ma sori de xaar na nag ah Mouhamad Niang merci yow tam mbuub jërëjëf bu kenn andi pièce bu kenn andi 500 500 yi kenn mu leen la wàññi te dañoo mën a bari sëriñ mbuub anamu mu ne joxe na cent mille na déet ko na ko yokk nee ko ustaas nee nga yokk neel sëriñ mbuub ustaas nee na nga yokkal ko imaam waa koy jërëjëf ñëw leen MRDS wecc ko te bu la nax jërë ngeen jëf waa koy Alioune sopp na la ku ci joxe daal bu déwé na yàlla na nga joxe ku joxe woon nag ñaanaluma la bay ba nga ñaanal sa bopp ministère bi ngeen ne ko ministère bi ngeen ne ko ñu ngi kii ministère bi ngeen ne ko ñu ngi kii chef officiel waaw kay yàlla nag sa njaboot am xam-xam pièce daal la ñuy bañ ak 500 ngeen fàttali ministère bi ne ko tàmbali nañu li ñuy jënde la gone yi mbiskit na am ñu ŋàbb ay mbuus dugg ci nit ñi ak seeni mbaxana te ku dajale na ma fekk fii lii la sëriñ buub joxe sëriñ buub faal kokki indi na li nga waxoon waaye nag li nga yokki joxaat ko ko moo indi waaw yaa def lii allahu akbar ñëw leen joxe yee bu ngeen bëggee mel ni Umar ibn Xattaab wala bu ngeen bëggee Usmaan ibn Affaan andi waaw kay ministre bi moo joxe cent mille ministre bi la nga joxe woon agsi na yaa ko taxan demal te del si yàqut ngoro ku ci joxe daal yàlla na nga fekke déwén ku joxewut na ñaanaluma la caméraman nag gisaguma kenn te ñoom ñëpp a ngi taxaw waa mbaar ma fële ngeen ñëw yéen yaa joxe lii téyel ma waaw baax na bu feesee takkal ma ko teg fii sama wet dégg nga waaw góor jëmb faal mu allimaat jërëjëf mu allimaat yi ñoo joxe lii sëriñ fàllu nag daana wax ne ku neexut a nax du nax kenn sëriñ fàllu mbàkke daana wax ne ku neexut a nax du nax kenn foo na joxal ne rek mu ne ah gars yi la ñuy kii rek daar yëpp kenn mënu koo defar sëñ Fall nee na ku dugg ci foofu doo génn mukk ñëw leen waaw bu feesee takkal te teg ko fi sama wet nga te bañ a ñëwal waaw baax na sottil ci biir jërëjëf demal wutiwaat nag dégg nga ñu nekk fële na am ku ma fa demal ñu nekk fële na am ku ma fa demal ñu ne ca baas fële na am ku ma fa demal ñi sori lool nag ñu ñu ñu yónnil ma xale boobu tudd Orange Money am na benn xale bu sawar la Orange Money ma nga nee leen ko vingt 77 526 75 97 xale bee ku ko yónni rek mu ñëw ngeen yónni ko te bañ di ko yónni 500 nag parce que day naqaree génne jërëjëf 500 moom yal na ko yàlla yërëm. ñi may laajal dajale leen waaye ndaw yow ni nga may def moom bég naa ci ah, as ndaw nee daf may daf may daf may baatare quoi tey ñëw ñu jël ko benn benn lal ma ko merci as ndaw yaag Serigne Mbuub ak ñi bëgg a def ni yéen yaa dajale lii dellul ci ñëwaat dégg nga innahu ala rajihi la xaadir mbokk yi wàññil leen ma million laa bëgg ñi dajale nañ ñëw ma xool su ma tee ma joxe micro bi su matul ma continuer caméraman ñëw leen ku ko ah gisuma leen de ah jërëjëf defal ci mbuus gi waaw góor sotti leen te dem jëliwaat dégg ngeen innahu ala raj'ihi la qadir waa kay sëriñ yokkaat na li ma ko laajoon jërëjëf mbuub yàlla na yàlla fay la ah nii kër la gaa yi defal ñay kii boo demee ñooy ñooy dekk Sorano xamuñ grand théâtre la xawma nii lañ leen defal kon nag defal leen nu ko nag rek yaa gën nogay jërëjëf waa ñu ngi ñëw ah Touba Vision merci Touba Vision bés ci rek waaw mbokk yi ñu ñëwagul nañ ñëw ñi sori yónni Orange Money wala ñu yónni Wari ay xale yu sawar lañ foo leen yónni loo sori sori ñu yóbbu la la ngay yónnee waaye nag ñoom du ñu yóbbu ay cent franc ki cinq cent mat na waaw ñëwal gàdd waññi leen ma su ma tee ngeen wax waaw bàyyi fàllu nee na ngeen àgg suuf ndax may seen nit ñi Baye Fallou nee na ngeen àgg suuf. Eh, jërëjëf Oustaz doyal nga. ma jeexal kon mbokk yi ci ne. lii benn la jullit yi. mooy ñu dégg seen téere bi. saar woo dem. fekk fa lu nuy bennale. saar woo dem. fekk fa lu nuy bennale. waaye saar yi moo doon wax léegi. nim nu benn lee moo gën a yéeme ci saar yépp boo doon julli ne iyaaka aabudu génn ñi nga mere doo dem wa iyaaka astainu génn ñi nga mere doo dem naabudu ngay wax nastainu ngay wax ihdina ngay wax lu ko mooy julli nga yàqu bokk na ci bennoo gi nag bu nu nekkee fii ci kokki sunu sotee sunu sotee jafeñ jafeñ yi fi nekk man ko waaye buñ ko seetaan ne kenn jafe-jafe yi daan ko jërë ngeen jëf yàlla yàlla sàmm leen sàmm nu aar leen aar nu yàlla nañ fekk déwén ñun ñëpp yàlla bu kenn manqué waaye nag wa saabixuuna saabixuuna bu leen ci kenn jiitu genn ñaan rek nag laa am mooy yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu